alhamdulillahi alkarimi silmilan alastighali bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim jërëjëfe Serigne Touba est-ce que Serigne Touba Serigne Touba amul morom saddi disaani nawir janaani safi amaani wasit baraay ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi alayhi wa di santaat Cheikhul Khadim bu baax di amati mbégte tey di dellu siwaat ci seen jàngatu tey di ziar kilifa ak bi muy Cheikh Moustapha Diakhaté Khadimul Khadim mu indil ñu tey nag euh, ñetteelu pàcc bi nga xam ni moo jëm ci nekk sëriñ bi ci njaareem mu yéeme lool te bari ay ay njariñ lool waaw ndax dafa mel ni ñun taalibay sëriñ Tuubaa waxtaane sëriñ Tuubaa mooy njariñ ci ñun ndax mooy mooy defar suñu àddina di defar suñu alaaxira te li ci lañuy jànge lépp ak jub ak bëgg diine ak lépp ci lañ koy jànge waaw kon tey mu indil ñu lu am solo nga xam ni sax euh, bële weesu sëñ bi eh, dikkoon nag ñun ci bi sëñ bi nekkee fi ñu ko njëkkoon a dalal ci njaareem muy mooy pentre bi nga xam ne dafa xat te sëñ bi daan fa jóge di dem ci bërëb boobu nga xam ne moom la tuddee buqa buqaatul mubaaraka léegi nga xam ne moom la ñuy woowee kër gu mag. waaye jóge gi mu daan jóge foofu di dem sëñ bi xamoon na ni eh, comme niñ ko waxee ci jàngat bi baase rek sëñ bi moom. ginnaaw lu muy def ci ndigal yàlla la koy defee xamoon na ni barab boobu barabam lay doon waaw li gën a yéeme sax mooy euh, barab bi nga xam ni moom lañ ko dalaloon fu xat foofu euh, léegi moomeelu Serigne Touba la muy lu yéeme nga xam ni euh, sëñ Moustapha leeral na ko keroog nga xam ni fuñ la dalaloon di la xatal commandant ba nekk fa say taalibe di la fekk si ñu bañ ne kenn du la gis mujj gi sax doxante bi nga daan def ñu bañal la ko ñu fay jàng xasida di fa jàng alxuraan di yëkkati ba mujj soxna commandant bi ne ñii dañ may seen chanté yi dafa may déranger waaw ba mujj nga daat fay jógee mun na la seetal foo xam ne jubu na la waaw fa nga daan doxantu nag fa sëñ bi daan doxantu foofu la ko foofu la ko jox waaw mu am loo xam ni nag lu yéemale ci muy kër gi ni mu demee tey nga xam ni euh, Cheikh Moustapha dikkal nañu ci. ni ko sëñ bi rëdd woon waaw nga xam ni euh, trois trois cent treize mètres euh, carré waaw trois cent treize mètres sëñ kon sëñ bi moo koy rëddal boppam kon foofu mën nga mën nga cee dégg ni bi mu ci jubóog suñu borom ba suñu borom xamal ko pakk bi ak barab bi da ngay xam ni itam suñu borom a ko jox ndigal ci li mu war a nekk tolluwaay bi ak yaatuwaay bi waaw euh, noppi teg ci itam ci biir kër gi lu yéeme loo xam ni bariwut sax lu lu lu lu muy am wala bokk ci moom lañ ko njëkk a déggee kër gi am na trois cent treize néeg waaw te néeg bu nekk am na njaq kon day doon trois cent treize njaq ba léegi waaw waaye da dangay da xool àdduna <clears throat> bi niiwaa na nga gis villa wala kër gu mat loolu ci ay néeg kër gu toll noonu ci ay néeg Ah, am néeg yu tol noonu ba noppi xatul raj rajloo bi amul mu organiser wu lu nekk nekk fa mu war a nekk loolu lu yéeme la <clears throat> loolu lu yéeme la damay wax ni Serigne Touba yenn yi moom ku jubawut ak yàlla maanaam di jëfinam daal nuroo naag jëfine suñ borom lool loolu nag déggoo gim yàlla déggoog yàlla. ba nekk nekk dëkkaaleeg suñu borom moo tax ay jëfam mënoo cee génn mënoo cee gis lu dul yàlla suñu borom ndax léeg-léeg nit nit sax def architecture rëdd dala wala doxalee nen <clears throat> bakkan feeñ ci wala àdduna feeñci ci wala seytaana feeñ ci wala bànneex feeñ ci waaye Sëriñ Tuubaa lu muy def ñeent yooyu du leen sedd duñ ci am benn wàll waaw duñ ci am benn wàll. kon muy lii loo xam ne lu mat a taxaw seetlu loo xam ni sax ci àdduna yi damaa foog ni war nañ ko jàng ci Serigne Touba maanaam bépp taalibe murit boo xam ne yaa ngi am makkaan ak lu mënti doon rek loo xam ne looy jëfandikoo la na nga seet na na ko sëriñ bi daan defee nga roy ko ci loola. ndax sëñ bi moom kenn mënu koo toppandoo waaye bu buñ ko royee boo ko royee yaay gën say morom boo ko royee moom gën say morom. moo tax yooyu lu mot a taxaw seetlu rek buñ ko waxee nii rek daanaka dañ ko war a téye waaye waruñ cee romb jàll mu des nag chiffre bi nga xam ni mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett jullit bu ne xam nga ni waa ahlu badrin lim boobu lañ woon waaw lim boobu lañ woon nga xam ni kon day mel ni Serigne Touba jeewal googu bi mu fa ñëwee daje fa tubaab bi nga xam ne moom sàkko mébatam moo doon bokk ci waa ahlu badrin ba mu gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca daa jàkkay daaru xuddoos ja ba nga xam ni ba mu ko ne ñetti weer moo la dese ngir taxal xutbu zamaan waaye dama la koy tëbal ndax sopp gu ma la sopp waaye sëriñ Touba lu mu ko tontu woon loolu baax na lool waaye gaa yooyu nga àndal ci laa bëgg a bokk kon moom lim bëggoon mooy bokk ci waa ahlu badrin waaye nañ jànge foofu pasteefu sëriñ Tuubaa bi mu fa jógee ba dem jeewal waxuma la bokk waaye dafa mujj nekk seen kilifa jiite leen muy lu yéeme nga xam ni tàqalikoo wut ak ñoom benn yoon ci tukki bi li la koy firndeel mooy sax bañ ko maralee garab ga jox fukki ñett fukk ak ñetti officier ne ku ku nekk yaa gën a aay ca la ngay diir ku ci nekk da ngaa mën li ngay def ñu ne leen bu moyen rek ku nekk dinañ la dégradé mare la ko garab gi bu ñu nee une deux trois rek nañ soqi soqi jam seen tuwa waaye da ngay gis foofu ni waa ahlu badri ñëwee ba ñoom ñëpp xam ah. kon Sëriñ Tuubaa kóllëre googu ak doxalin boobu lay sàmm ci waa ahlu badrin ba nga xam ni lu muy def da ciy seen jëysun boobu noonu li mu jëysun Ah, kon mu jeysun bi di di di lim bu am solo ci ñun taalibe yi nga xam ni daanaka liñ ci mën a jariñoo sax bari na waaw liñ ci mën a jariñoo bari na waaw liñ ci mën a jariñoo ci xasida yi bari na lool waaw kon lool loolu dañuy ubbul nag buntu gëstu bu yaatu boo xam ne ne taalibe yëpp daw nag songi jeysun boobu lu tax Serigne Touba fonk ko ak lu lum ci dëxëñ ak fan la ko dëxëñ ci xasida yeeg yooyu ñu daw songi ko kon ginnaaw kër gi 313 mètres carrés la am na 313 chambres am cent 313 njaq waaye li ci gën a yéeme mooy dafa mel ni sëñ Moustapha dafa leeral ni njaq yooyu dafa am ñoo xam ni ñoom la ko fay rootal ñi ko ñi ko daan root weeri góor yàlla ak ak ñett yaakaar naa la wax nga xam ni loolu rek mooy seen liggéey ñoom ñooy root njaq yi ñetti fan yu nekk ñu root ko ba mu fees. nga xam ni kon Serigne ni mu organisé woon waaye li ci gën a yéemeeti mooy organisation Serigne gis nga maanaam dafa mel ni boo ko seetee sax maanaam jullit bi jaamukatu yàlla bi organisation dafa war a bokk ci mbiram maanaam organiser say mbir lu nekk waxtu wa nga koy defee bu jotee nga def ko lu baax tax ñuy wax nag leneen moom taxuñ ñuy wax. maanaam waxtu wu ne la nga ko àppal bu jotee nga am fulla ju toll ni ak pasteef bu toll ni def ko bërëb bu nekk la nga fa soxla nekk fa nga xam ni doo wër doo jóg di laaj kenn wala ngay sonal kenn wala nga indi confusion li ñuy wax nga xam ni fi nga koy jàngatee ci Sëriñ Tuubaa mooy néeg yi li ñuy bari bari bari néeg boo dugg di nga fa fekk na matt wala ak nit wala béy wala nga ne almet ak euh, yëre yi baraada yërey kafe nga xam ne dara du fa manqué nga xam ne sëriñ bi bu ne woon bëreet dugg foofu rek koo fa fekk mën mën nga faa tàngal kafe wala wala wala warga mën ndox maa nga fa lépp nga fa waaye nag foofu dama foog ni euh, man dama cee am beneen déggin dama foog ni sëriñ Touba du caagee nit nit ñi nga xam ne ay doomu aadama la rek ñoo fa ñoo fa daan nekk ci kër googu ndax ginnaaw néeg bu nekk boo fa duggee loo soxla fekk ko fa. ah yaakaar naa ni euh, damaa foog ni sax waa ahlu badrin ci boppam moom maanaam dañoo dëkkoon ci kër gi ci boppam nga xam ni fu ñu dugg mën nañ faa jëfandikoo lañ fa bëgg te kenn du leen gis waaw ah, loolu moom sama sama déggin la moom ci loolu li tax sëñ bi néeg bu nekk mu équipé ko doo dara dafa manqué am lal am ay téere alxuraanul karim ay téere ba mu fees di di ci xëpp euh, gët am basang te sëñ bi mësta lu wetam mësta laal ab lal waa léegi nañ dellu ci histoire waaw dama bëgg maanaam euh, taxaw seetlu yi di am solo ndax dafa am lu ñuy tuddee capacité humaine loo xam ne barrières yooyu Sëñ Tuubaa da koo daj fan lañ mës a gisee ci àdduna koo xam ni mësoo tëdd ci ab lal mësoo noppalu më te nit ku ne xam na ni boo tegalee ñaari fan yoon nelawul rek kenn dootu booy wax da ciy feeñ booy dox mu feeñ ci lekk sax xewlu dootu ko man waaye kon nañ seet Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom daawul tëdd ci lal. daawul tëdd ci lal kon jàpp gi ñu war a jàpp sëriñ tubaa kennal ko yàlla ci boppam moo ko njëkk a kennal moom ci boppam mu kennal boppam kon dama foog ni doomu aadama bu ko kennalu du wàññi dara waaye ndokk ba ñu yàlla dimbale ñun taalibe Serigne Touba yi nga xam ni gëm nañ ko te jeex ci moom tàkk muy suñu lépp àdduna ak alaaxiram ñu yaakaar ko yaakaar naa ni war nañu am fulla bu baax a baax a baax baax ci dolli koo kennal ndax ay mbiram da koo wane. ay mbiram da ko wane yàlla suñ buur bu tedd bi won ñu yoon wi ci ay jëfam ak ci ay waxam ak lépp kon muy lu am solo nga xam ni itam Sëriñ Tuubaa indeeti beneen euh, jàngale ci wàllu àdduna waaye loolu day dellu si ci li ma wax léegi ba léegi rek ne nekk jullit bi moo war a gën a organise ñëpp ndax li tax loolu mooy. boo xoolee Serigne Touba sëñ Moustapha indi na ko ci waxtaan bi leeral na ko ba tudd tur yi nga xam ne ku ci nekk kii moo féete woon wàllu menuiserie kii féetewoo wàllu ëw kii féetewoo wàllu ñaw kii féetewoo wàllu jaafire yi nga xam ni jaafire yi mu daan defar bu ko deferee ak xaside yi indi ko ci ñu defaral ko ko ba mu baax ñu ci def xaalis xaside yi mu ci xëpp téere yi mu ci xëpp gët ca jamono booba nga xam ni loolu daaw dox ba gis maanaam lu rafete noonu lu rafete noonu ak ak lu lu arti lu am artisanale noonu waaw loo xam ni lu lu lu yéeme la daal yooyu fi mu toll nii yaakaar naa bu buñ ci defoon ay gëstu ba ba ba adduna gis ko ñu ne lii jamono boobu la te nii la ko sëñ bi daan defee ah yaakaar naa ni dinañ ci jàngiwaat lu baree baree baree bare bi ci tege mooy ñi ko doon ñawal sëñ sëñ Moustapha yaakaar naa ni tudd nañ ci ñett waaye li ko waral nag danga koy gis ginnaaw sëñ bi moom julli gu nekk ak mbubb mu yees la ko daan defee loolu du jaaxal kenn ñetti tailleur yooyu nga xam ni ku ci nekk da ngay ñëw ak ndima yi jamono yooyu damay wax ni ndima ni mu jafe waaw ndima ni mu jafee rek waaye sëriñ bi fexe na ne ba bi waxtu julli bu nekk na ko jullee yëre bu yees jamono jii moom ndima yaa ngi ne xas. yii ñeen fukk ak yi juróom-ñett fukk ak yi téeméer ak ba boo bëgg waaye jamono bii ndax loolu waruñ ko li may wax rek sëñ bi duñ ko toppandoo waaye nañ nañ ko roy ci yenn yi nañ koy roy ci yenn yi waaye dangay gis fi mu toll nii jamono ji ko solu ba rafet rek wala ndima la gën a cher boo ko amee mooy da dem xew wala da bëgg gis leen ma waaye doo ko sol mukk jàkkaarloog yàlla sa borom te boo doon dem tey audience fenn wala kilifa goo fonk rek da koy da da da da nga koy sol. waaye Serigne Touba yàlla képp nga gis tam lal yi yooyu yëpp boo demee njaareem sax xaj na ku dem njaareem fi mën nañ la ko woon waaye da gis lal ya ca jamono boobu menuiserie bi lal yi li muy rafet rafet sëriñ bi du ci tëdd mukk ay téere la ci teg alxuraanul karim bi nga xam ni mooy wax yàlla suñ borom ci la koy teg di ci xëpp gët foofu itam fan lañ ko mës a gisee ci àdduna ku mel noonu kuy def lu mel noonu. fan lañ ko mës a gisee ci àdduna kuy def lu mel noonu waaw wàllu tëgg weñ gi tam gis nga maanaam dara loo xam ne sëriñ bi da koy jéggaane ci biir kër gu njaareem amul lépp lu nit di soxla rek am na ku ko fa mën ba qualifié am ci xerañte goo xam ne sax day mujjee jaaxal jaaxal nit ñi waaye itam dafa am beneen sew-sew ci biir boo xam ne sëriñ bi da ko cee roof mu doy waar mooy li nit ñi di jàpp naan euh, tëgg yeeg euh, géwél yeeg euh, uude beek nangam da daan jël koo xam ni jàng alxuraan lañ la séentoo mu lay ëwloo waaw koo xam ni tëgg lañ la séentoo woon mu mu def la ab jàngkatu alxuraan nga xam ni moom comme waaso yi ni ñuy demee nii di di di di bañante nga xam ni jamono bii da ngay dégg kii du sëy kii kii du sëy Sëriñ Tuubaa dafa dàqoon loolu bu yàgg. indi woon ci jàngale bu rëy a rëy mooy lii waaw maanaam tëgg fi mu mu def ko jàngkatu alxuraan waaw def ko borom barke waaye teewul nag ñëpp ay jaamukatu yàlla la ñuy doon ñëpp ay jàngkatu alxuraan la ñuy doon waaye xeebante ci diggante askan amu fa amatu fa muy loo xam ni yaakaar naa ni euh, Sénégal yàgg nañ cee daj ay coono te ndekete yoo loolu yëpp ñàkk jàng Serigne Touba moo ñu ko yóbbe woon ñàkk jàng sëriñ Touba moo ñu ko yóbbe woon kon muy la am solo loo xam ni war nañ ko cee jàng tey ci euh, li sëñ Moustapha indi euh, ci kërug njaaram gi waaw muy lu am solo loo xam ni am nañ ci mbégte lool ndax dundal euh, suñu ruu yi li koy dundal mooy waxtaane Serigne Touba waaw amati nañ mbégte lool waaw di wax ni rek yàlla nañu yàlla defal ñuy tàmbalee ci Serigne Touba di yem ci Serigne Touba ndax mooy suñu njariñ kon ñoo ngi sant bu baax di ziaraat sañ Modou Moustapha Diakhaté bu baax xaadimul xadim di ziar mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi koy topp ci Saxum Touba point net di ziar ñëpp tey ñaanal ñëpp di sàkk ci ñoom ñaan eh, di ñaan Serigne Touba boole ñu dimbal yàlla nañ dajeeg tawfeex Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér te naal yim naal Serigne Touba yàlla na ko eggale ba naal yeneen ni naal eh, ñu ànd kook moom te am ngi ci am ci ngërëmal Serigne Touba